ma mbaay faale melin la Ahmadu Bamba ma mbaay faale nelen la Ahmadu Bamba yaanu ma jaani melin la Ahmadu Bamba ay la la la jaani melin la Ahmadu Bamba Bismillahirrahmanirrahim. rahmaani rahim barki sëñ Bàmba dooley Cheikh Ibra ay ah, yeen bokki julidi yeen bokki mbokki taalibe Modou moma kalamé ak yeen rawatina nak waaw tay bi nga xamné mo ngi taxawé bi ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yàgg a taxawe lu mën ren yàlla na mën déwén ko romb dadi nag lim moom dafa jafe waaye boo nee góor ak jigéen ne mag ak ndaw motal nga doom aadama yépp sëñ Modou ne na amul seen ak pay yàlla nag am na seen ak pay yàlla na leen yàlla ak sëriñ Touba fay. rahmatullaahi taala wa barakatuh yéen mbokki jullit yi mbokki yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sunu xarit sunu am di jàmm doon yaakaar muy sëriñ bi ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko nuyoo tam ci kàdduk ki nga xamne moy serigne amdi am di Modou Mbendam Cheikh ibrah serigne bi mu ngi nuyu ñep mu ngi sante ñep mu ngi ñaanal ñep am euh bis bi itam ñi fi jitu ni ñu ko waxe rek ni la daan demee kon bi nu yàlla dimbal defal nu dimbal ñu fekkiwaat ko fekk fi itam sunu sunu lépp muy sëriñ xaadim mi loolu ci wàllu boppam doy na sëkk ci bis bi li ci dolliwaat itam euh, sëriñ bi ñu ngi lay tuubal te di la massawoo tam liy coono yi ndax yéen ci seen wàllu bopp mënunoo xam lépp de waaye bu nab nabee benn minute képp bu ko mbàkke mbàkke yi ñëwee fi yow loolee ci wàllu boppam dafay diis lool ndax loolee mu la may ci boppam dafa romb yitte yu bari daf la yitte kon nag su yegsee yow ci sa wàllu bopp nu mu toll bari na ba àgg ci lool ndax bari na ñu ko bëgg te mënuñu ko am bari na ñu ko bëgg war koo am dogalu yàlla agsi wut ci ñoom kon nag bii moom dogal bi dafa agsi kon Mbàkke jërëjëfati delloo nag euh, nuyoowaat mbokk yépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci dëkk beek tund wi Touba ak Ndakaaru fépp képp ko xam Toubé Bane ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar di leen balu àq te di leen baal àq euh, maam Modou moom bu ñu nee asalaamaaleykum it jaare ko ca sëñ Moussa mën na noo tënkal lépp ndax. lu mu ci doon lu ne am na ci lu nu loo xam ne lu nu fekke la keroog bi muy fab lépp féetale ko ki nga xam ne mooy Baye Modou daf ko jëwrin mu doon loo xam ne lu rafet la lu jekk la xam na bu baax itam kon loolu ci wàllu boppam ak sant la te ak juboo laatam defee su ko ngir ngisalum àdduna defee su ko ngir leen na ki nga xam ne tam mooy Baye Modou ginnaaw moom mooy féete ci liy wàllu féete ndaw gi di ko doxal ay yitte di ko waxal ay yitte loola ci wàllu boppam mu doy ko ci sëkk teew itam du ko yàqal lu bari wax dëgg yàlla loolu euh, cër bu nu cëralewaat la Baye Modou nag mën naa am loo xam ne kenn ku ci nekk xëy na boo fekkee wala boo fekkewut am na loolu nu mën a waxtaan ci moom. ndax baay Modou dañ koo fekk ci kër sëñ Modou Mbenda Baye Modou di dox ba yàlla def mu fab ay loxoom teg ko ci ki nga xam ni mooy sëriñ Amdi moom sëñ Modou Mbenda càll la gam gam fi fekk dafay mel ne damay gàttal noonu rek waaye lépp fan tàmbalee ci sëñ Modou Mbenda ba ci sëñ Cheikh Modou Mbenda ba ci sëñ Taala meññeef ak ma ngi nii ba ci sëriñ Amdi sëñ Amdi doon sëñ Amdi Modou Mbenda sëñ Amdi moomee la mu jëkk a def mooy daf ne waa Toubé baan ci seen wàll bopp day su yàlla defee ñoom ñu waaxu ba ñëw ci man ñàkkatuma dara duma ko fàtte mu daal jël Baye moodu Baan mii teg fi wetam man na maa doon taawu sëñam di waaye Baye Modou Baan la jël teg ci wetam xaalis buy dugg ci loxoom la koy teg xaalis buy génn danaan laaj leen sëñ Modou Baan moom ci wàllu boppam mu teg nag li jafe sàmm muy ngor jamono ji ngor da cee jafe la mu tënku woon ci taalibe sàmmoonteeg ak ngor billaahi wallaahi musumaa gis lu mu yàqal sëriñ bi te ñu ndoom la ñu te bu nu gëmmee dañuy ree nga dafa ne danoo gëmu fekk la ci sa gannaaw xam nan ko waaye ngoram suturaam billaahi wallaahi damay faatu waye zéro faute la un mois muy wéru koor kii fab ay million teg ko ci sa loxo dërëm boo génne man léeg-léeg dama naan am lu ma doon jox diw ma ko sama yoon newu ci kala doy loo moo la dénk la ngay liggéey sa digganteeg yàlla sab sëriñ man am fii mu ne ni nga sës ci sëñ bi man jegewuma sëñ bi loolee ba léegi mu ngi koy def barki démb laa toog ak sëriñ bi ni ko bàyyi Modou Baan ne bisam ba alxemes la mu ni moom Modou Baan sëñ Modou Baan lu mu war a def def na ko barki Cheikh Ibra Fall lu mu war a def rek def na ko joxe na addiyaam leneen lu mu war a def def na ko bu bis baa nag mën ngeen faa teew loolu rek laa leen di wax kon loolu te itam damaa ñëw fii matul ñaari fan maam sëñ bi yebal ma ma ñëw ci moom ànd ak moom ñu dem fii ak màggal màggalu gay bajaan ñoom gii keroog fa yendu ba ma fay jógee ma ñëw fii wàcce ko ak baay njegabaan mii mu jox ma bis ni dina fa ñëw ñu juyoo waaye ñu ma bàyyi gannaaw leeraloon naa leen sëñ Modou Bane dafa ñëw dañoo toog ba nga ba ba ba ba ba ba war a toll ci bëgg euh, sëñ bi bëgg a fatu ñu déy ko ni ko man euh, waxtu wi ngay war a kii de jege na mun leen ana sëñ Modou Baan kon xamal na ni ña nekk balay fatu moom dana gis sëñ Modou Baan ndax xas na dugg ci boppam xas na ko téye ci xelam loola la def ba mu ko gisee la door a fatu kon sëriñ bi yow fii sëriñ Tuubaa sëñ Maamoor ñu ngi lay santaat Mbàkke bu baax a baax euh, sant nag da doy doonut itam bari wax li ñuy wax itam dañu koo ñeme li ñuy wax itam dañ laa yéene li ñuy wax itam dañ laa bëgg ku mu neex mën ngaa gëm moomu ñu gëm-gëmu kenn ku mu naqari mën ngaa weddi am Cheikh Fall képp la mooy wax waaye li nga seere ci néeg bi ci Baye Modou Bane mii Mbàkke yaa gore Mbàkke yaa baax bu jàmbur walla cër bu mën a doon saa yoo ce ko laalee dana ko yëg te li nga fi seere ñun ñi mën nu ko seere te lépp rafet lépp baax nii ñu doon seere kii naan tool bu nu woote ak fu nu woote lu baax sëriñ Modou Baan teew na fa teewal na fa mboole mbokki baaneen teewal na fa mboole mbokki euh, dëkkandoo du bëgg daraja ab coona te coona bee mu xam ne coona Euh, lu baax mooy coono Baye Modou am nay rakk am nay doom am nay taalibe bu leen yebalee moom mu doy sëkk waaye kii dafa wax ne lu xewlu ne day takk laxasaayam ku nangu ànd moom mun lay fa ci béréb sàngam laa jëm fa muy jëm njistal yóbbu ko fa euh, xëcc daraja yóbbu ko fo fa yàllay kese akuk taalibe akuk nangu képp ko fa yóbbu ku dajale sa juróom jox ko sëñ Modou ban yóbbu ko cay takkoy Touba ca sëñ ba la ko yóbbu soo dikkee fekk ko ngorom soo ñibbee bàyyi ko ngorom ak taalibeem wax lu yàq day man yaakaar naa ne li nu ci béréb di waxtaan bari na waaye ci bir bari bari wax ma loo xam ne dana ma tàggaleeg mbokkam wala mu wax ma loo xam ne jey-jey la walla mu dugal ma ci kàmb goo xam ne su ma ca tàbbee bu ma génnee am gàcce wala mu wax ma ci sama rakk yii wala samay mag tàggol ak ñoom wala defal nii billaahi wallaahi bàyyi moo du duxut loolu wax mosuma ko wax barke Cheikh Ibra Fall kon bay Modou mbok yi mbollem kula xam ak kula yene xam ak kula bëgg xam ku ne mu ngi lay ñaanal di ñaanal njabot gi di ñaanal bokk yi yalla guddal fan yi dolli te mbollem li safani yalla buñ ci gis dara doli Serigne Touba katanu Cheikh Ibra li nga xam ni bu koy tuddu diko tuddu muy muy néewal ka bari muy lii ñu génne ci nawet lu nu ci am suñu koy lekk yal na rees ak jàmm yal nu jik leneen la ñuy séentu yal na doon ay ngëneel ak xéewal bu baax a baax mboolem luy tumuranke mbàkke ñoo ngi ñaan nga ñaanal nu ci tumuranke yi bari na kenn ku ci nekk fii mu ne nii sama classe gii ngay xool buñ lay xool da nga naan Cheikh Fall doomi sëñ am di ji ak a ñaaw moonte maaka rafet maa ngi ñii toog xam nga lu bu lay xool mel ni kuy gañ wala ñuy jooy dafa danoo toll ci mel ni danoo ñàkk rek waaye loolu sunum xel mu gàtt la ñàkkuñu dara ku am sëñ Tuubaa ñàkkoo dara waaye nag euh, euh, weccat ci poos dafa xaw a dalum xel booy xool doo piis da ngay xuliku jàpp waaye ñun ñëpp rafet Fi mu ni ñaanal nu rek bu nu ko amee danañ la ko sorti de li nga bëgg boy joxe ñuy door muy daanu sikki sa kuy sikki sa ak ab Baay Faal wallaahi laasim amut bu nu am ku nu am xam. mbok yi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñogi neuy ñep euh di sante bu baaxa baaxa baax ki nga xamanteni bi mom lañ taxawal ni moy Serigne Fallum Fall mom Serigne Mbacke mom Serigne Modou Mbend mu ñew ci magal gi nga xamne mom Serigne Modou ban mom lay defal ay waajuram yu tedd ya waye di ci sante kilifaam ga di ci sante yaakaaram ji àdduna ak àllaaxira moy mam Cheikh Ibrahima Fall da bay maam Seynabou Ndiaye. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu buñu sante yalla ñoo ngi Serigne Touba ak mam Cheikh Ibrahima Fall di sante Serigne Amdi Modou Fall serigne Amdi Modou Mbend mi nga xamni mo moo yabal fi ñu teew ci fi ak ñi ñu andal ñep ndax bis bi day bisub Cheikh Ibra bisub Cheikh Ibra nak ñep ci lañ rawati na nak wa keur serigne Modou Fall Mbend ji fi dekk bi nga xamni moy mooy ban dañu yaakar lu dul Cheikh Ibra seen buntu ci keur Cheikh Ibra di keur serigne Modou Mbend lepp lu serigne Modou Mbend nekk ñok ñoma koy andal kon nag war na bu sant Cheikh Rafal amee fii nun waa kër Cheikh Rafal yëpp ñu dajaloo ñëw teel fi sëñ moodu mii ndax sëñ Modou day kenn ci nun sëñ moodu day taalibe ci ñun di bàyyi ci ñun di xaritit ci ñun ba tax na lépp lu xew la day kenn waruñu faa jiitu kenn waruñu faa njëkk kon noo ngi sant mbooloo mi di leen jottali cantuk sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Fall Mbenda ndax kii mooy jëwrinam mooy sëñ Modou Bane mii lepp lu sëñ am di xëye boo ñëwee da ko fekk ci kanam mu tok kon nak bis bi loolu tax mu yebal ñu fi ñun di ñëpp di ay domam teewal ko fi mom momé tay ji bu ko mënon day ak jot may ko ko am di mooy ñëwal boppam fi teewal boppam ci bis bi. kon nak sëñ Modou na xamni bis bis ñoko mom. suñu sunu bisa dafa tolloog amunu jot ndax bis yu melni rek lañuy wër waye kon dañ fi fanan ak mom bu beut set ndax loolu mo nu war mom mi kat dedib talibé ci nun waye kilifa la ci tundu wi bisam bi woté nako kon nak ñong koy sant diko ko di ñaanal mbolo ma fi nek yalla nañ fi tew na gën diwel barke touba Cheikh dañuy sàcc di ko wax ndaa nun ndigal rek la moo nu soxal ak lii ñuy jëf nii moom donc moo nu soxal sëñ Fallou ngi nii ci biir mag ci sëstu sëñ Modou Mbenda kii jaar fii léegi sëñ Aliou moom sëñ Talla Modou Mbenda kon ñooñ bu ñu teewee daana kon ñëmunoo wax fi ñoom <coughs> lii daa doon lu ñu mën da ñàkk wax sax waaye mënoon ko ñàkk wax waaye ñii damaa joxoon bàyyi ko du mais ak jib mee kaddu dama ci mot tuuti rek ñoom daal li ñu jëf daayira bi bañ ko tàmbalee ba ndakaaru dañ ma woone ma daayira bi nuñ koy tudde dañu koy tudde sa dañu koy tudde sampal may leen sampal dafa yaatu sampaax sampal boo nee sampal yem ci ñu yóbbu la dëkkub sëñ Cheikh Fall Baye góor boo nee sampal ñu yóbbu la njasaam boo nee sampal ñu yóbbu la teyif lépp nag sëñ gat sëriñ Cheikh Fall Baye ba mu tojee sampal ñoo ñëpp dañ di rakkam mu wëlbate ku kenn ku ne mu wóotal la fa daara ak ab dëkk nga ne moo tax Sam Fall yaatu may leen ku ngeen de tudde tudde leen ko taw tawfeex ak Serigne Cheikh Modou la mooy taab Serigne Modou Fall Mbenda boo demee nii njasaam taw ak la féete nii Sam Fall goog Serigne Cheikh Fall ba gu féete la penku kon lii ñuy def lépp sax de ko jaru don wax ju tuuti rek ñëpp daa moon da indi liggéey bu toll nii wax ñu leen di jaaju yaa ngi dégg ma tey waaye yéen sama jaaji bokk yéen dema ko waxoon ñee eh, mënoon naa cee bañ a wax waaye wolof nee na bu jàngaru ni wa wane na màggalug Tuuba ku dëkk tuube taawut te sama kër ga lu man dama dul fenal kenn su ma dee maag sampax bu dun moom mii di wax fi njëkk a baan mais ku dëkk tuube taawut te sama kër ga Tuuba yéen ñee fa ne woon kon mel na ni kër ga seen këra kër ga di kërug fo chevre fa la ma ko moo nu ko séddee ndax sëriñ am di du Mer na ba muy séddale kër si Cheikh Ibra Fall moo ma ko jox te mu ngi nii doon Cheikh Ibra Fall tey kon yéen kat lii ngeen di liggéey mel na ne ba ngeen koy tàmbali yëgu ñoon ko waaye defe naa ñëpp yëg na ko bi mu waaye day gën a yokku wóor na ma ne di gën a yokk du wàññeeku mukk day gën a yokk rek donc ko ñaan ci doole sëñ am ni mi nga xam ne toog na bay Cheikh Ibra tey ci kaw suuf kee sama bàyyi di bàyyi lat ko du mii di bàyyi boo xam ne bi bari na nuy bàyyi لا إله إلا الله لا إله إلا الله soppal Sëriñ Tuuba defal na ko jaka ko soppal Sëriñ Tuuba sa loxo jaka yaa moom moom bay fal yi ne leen waa Ahmadu Bamba la ilaha illallah ne leen waa Ahmadu Bamba yaay moom jaat ne leen waa Ahmadu Bamba la ilaha illallah Serigne Touba sa loxo ca kaw Serigne Touba sa loxo ca kaw yaa nu ma am bay ma leen leen la Amadou Bamba waaw waaw am jaam ñe ne leen waaw Serigne Touba yaay borom bay ma leen ne leen waaw Amadou Bamba ndeysaan am jaam ñe ne leen waaw yaay borom jàmm ngeen ne leen waa Amadou Bamba na la faal yàlla gi noo lay lay la la lay lay la la lay la la yàlla gi noo lay la la lay lay la la yàlla gi noo papa sëñ Amdi Fall a baax sa loxo ca kaw sa loxo ca kaw sëriñ Amdi Fall sa loxo ca kaw sa loxo ca kaw sëriñ Amdi Fall sa loxo ca kaw faal sa loxo ca kaw te kaw du benn faal yaa nu ginnaaw la ilaha illallah faal yaa nu ginnaaw doomu wee dul na réer yow kuréer ga ginnaaw doomu wee dul na réer kuréer ga ginnaaw doomu wee dul na réer kuréer ga ginnaaw sëriñ Moodu Baan Moodu ginnaaw لا لا لا لا لا يا نقد ما جارا ما مام شيخ ابراهيم فام جارا فام شيخ بابا تات ليرال بدنيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا نقد دوبيا دلارين كورير دغين كورير دغين yaa nu xeeb la la la la la la la la la la faal yaa nu ginde doomu yaa nu la reer kuréel ko ginde doomu yaa nu la reer kuréel ko ginde doomu yaa nu la reer kuréel ko ginde moodu baana maax moodu ginde la la la la la la la la la faal Fallou gi defal maam Cheikh Ibrahima Fall defal lii defal lii sa loxo defal maam Cheikh defal ni sa loxo ku topp Seex Ibra loxo loxo ku topp Seex Ibra yëgul loxo ku topp Seex Ibra yëgul yëgul yëgul yëgul ku topp Seex Ibra yëgul yëgul yëgul loxo jóg leen taxaw yàlla seeni bàkkaar yàlla jéggal leen jóg leen taxaw seeni bàkkaar awaaji jéggal seeni bàkkaar buur yàlla jégal leen jaayu déen ku jaayu ren jaayu déen ku jaayu ren jaayu déen ku jaayu ren jaayu déen ku jaayu ren jaayu déen màggal maam Cheikh Ibrahima Fall moo nu gàndala laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Fall yaa nu gindee la la la ilaaha illa la la ilaaha illa la Cheikh Ibrahima Fall moo nu xet la la ilaaha illa la la ilaaha illa la Fall yaa lu gudde doomi raadu la reer ku reer go gin góor go gin doomi raadu la reer ku reer go gin góor go gin doomi raadu la reer ku reer go gin góor go gin nu xeet la la la la la la la Moodu Mbenda Faal yaa nu ginde maam Cheikh Ibrahima Faal moo nu ginde Moodu Mbenda Faal yaa nu ginde maam Cheikh Ibrahima Faal moo nu ginde Moodu Mbenda Faal yaa nu ginde maam Cheikh Ibrahima Faal yaa nu ginde Modou Ganda Fall yaa ma xamal yaa ma xamal maam Cheikh Ibrahima Fall yaa nu gindee ati Modou Ganda Fall yaa ma xamal yaa ma xamal maam Cheikh Ibrahima Fall moo nu gindee ati Modou Ganda Fall yaa nu gindee yaa ma xamal yaa nu Baye Fall yaa nu gindee ati Modou Ganda Fall yaa nu gindee ati Modou Ganda Fall yaa nu xeexla Modou Mbenda Fall yaa nu gindee Amdi Modou Mbenda Fall yaa nu xetla Amdi Modou Mbenda Fall yaa nu gindee Amdi Modou Mbenda Fall yaa nu xetla Amdi Modou Mbenda Fall yaa nu gindee Moustapha Fall yaa dugg ndee. yàgg leen Modou yaay. waaw yaa dugg ndee. gaynde Modou Mbenda Fall yaa nu xeet la. yàgg leen di Modou Mbenda Fall yaa dugg ndee. Fall Modou Mbenda ma moo dugg ndee. yàgg leen di Modou Mbenda Fall yaa dugg ndee. gaynde Modou Mbenda Fall yaa dugg ndee. Modou Mbenda oh, Fall yaa nu gindee gaynde Modou Mbenda Fall Modou xeet la Modou Mbenda oh, Fall yaa nu gindee am sarfan yaa nu bay gore ba ala la ilaha illallah sarfaan yaa ma doy gore naa laa ilaaha illallah maam sarfaan yaa ma doy gore naa laa ilaaha illallah allah laa ilaaha illallah gore baan yaa ma doy gore naa laa ilaaha illallah gore baan yaa ma doy gore naa لا لا إله إلا الله أجب من يا مبي جرغا لا لا إله إلا الله أجب من يا مبي جرغا لا لا إله إلا الله أجب من يا مبي جرغا لا لا إله إلا الله أجب من أبو مرو جرغا لا لا إله লনায় কুরবান অমর কুরবান লনায় কুরবান অমর কুরবান ভাই কুরবান অমর কুরবান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভাই কুরবান অমর কুরবান দাদা bay kurban ya nabi kurban la ilaha illa allah la ilaha illa allah kurban ya nabi kurban la ilaha illa allah la la la la la baabu du du daay la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha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 Why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 génn góor yabula bay Modou Baar baatu góor xamulay génn góor yabula Cheikh Modou Baar baatu góor xamulay génn góor yabula bay Balla Baar baatu góor xamulay la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah yàlla yaay buur di borom la la la la ilaha illallah ku sopp cheikh ibrahima fall defal sa loxo ñu magal maam cheikh ibrahima fall gor gu de sen maram modu yaay ben fall Yalla dal fall goy goy modu yaay ben fall yalla dal fall goy goy sul ñam di modu ben fall Yalla bonu ka wasare sul ñam di modu benn fall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

لا إله إلا الله يا جلا أم منافر يمنا ويسن النار فلا جلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله